yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu xëyee ànd ak Muaaz ibn Jabal teg ko ci gannaaw mbaam mi mu waroon alayhi salaatu wasalaam koy dox ba mu yàgg mu ne ko yow Muaaz ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci ay bindeefam ak lan mooy xaqi bindeef yi ci seen borom mu ne ko ah yàlla ko yonent bi day ñoo xam loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xaq yàlla ci ay bindeefam day mooy ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara kon ñaareelu tawxiid mooy nga xam ne li yàlla yeyoo ci yow mooy nga jagleel ko ak jaamu bu ñu waxee jagleel mooy nga jaamu ko moom dong te doo jaamu keneen doo jaamu aw xiram ni ko ceddo ya doon defe xiram nag bu ñu ko waxee lu yaatoo yaatu la ndax ceddo ya dañ doon ñëw yat ca jaahiliya ga dañ doon yat seen dara muy aw doj ba noppi samp ko fi béréb di ñëw di ko jaamu am bés bu ñu fay daje di ko def xërëm woow yi mën naa dem ba àgg ci ay xàmb yoo xam ne dañuy wax lii mooy xàmbi diw sàngam wala mooy xàmbi dëkk sàngam wala xàmbi kër sàngam dañuy gëm ne ku bokk ci famille boobu te doo sangu ci xàmb yi yow sa mbir moom du mën a baax di fab ay yëf di ko fa indi di ko fa rendi moo xam ay ganaar la di fa sotti ay deret di fa sotti ay soow loolu jaamu xiram la mën naa dem ba àgg ci ay tuur yoo xam ne dañu jàpp ne fii am tuura nga fi moo xam ne at mu ne faaw ñu defal ko nàngam suñ ko deful nàngam musiba day wàcc ci waa dëkk bi wala ci waa réew mi dañu dem ba di ko rendil ay nag léeg-léeg mu jéggi dayo sax ba ñu def sacrifice boo xam ne ci doomu aadama la nañ dañ koy reyal nit mu door a dal suñ ko deful géej gi mën naa baawaan ba sotti ko ci kaw nit ñi gi mel noonu yooyu yëpp xeetu jaamu xiram la kon nit ki du doy rekk mu ne man danaa jaamu yàlla waaye lay baax mooy danaa jaamu yàlla te duma ko boole ak keneen maanaam duma jaamu kudul yàlla loolu la laa ilaha illa allah di firi boo xasee wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah mooy yàlla dong lay jaamu te keneen ku ñuy jaamu ku nekk weddi naa la amut leneen lu ñuy jaamu fa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati l wuthqa moo tax pas-pasu lislaam ngir mu wér ci wàllu jaamu nit ki day màbb lépp mboolem luñ doon jaamu ba dara desatu fa lu ñuy jaamu mu taxawal jaamu yàlla moom dong te du jaamu keneen moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne bala ngaa nekk mu'min da ngay nekk kaafir ba noppi da ngay weddi li ngay weddi lu mooy lépp lu dul yàlla moo tax boroom bi fa man yakfur la jëfandikoo fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah da ngay weddi taaxuut te mooy lépp loo xam ne dañ koy jaamu te du yàlla te bëgg ñu jaamu ko loolu weddi ko yow moo xam nit la moo xam bant buñ samp la moo xam géej la moo xam am tuur la moo xam lu weddi lépp ba dese kenn ki muy ki bind lépp te moom lépp ku bindul lépp moom lépp sañoo ñu jaamu la moo tax yooyu dañoo ànd yooyu dañoo ànd bind te moom mooy tax nga sañ ñu jaamu la ku bindul moomoo sañoo digle di wax jaamu leen ma wala defal leen ma nangam muy farata yi moo tax borom bi dafa ne ala lahu alxalqu wal amr lahu alxalqu wal amr maanaam moo moom bind gi waaye moom moom santaane bi ki sañ a bind ki mën a bind kooku moo sañ a santaane indi ay jaamu yàlla indi defal leen ma nangam defal leen ma nangam te bu leen def nangam bu leen def nangam ki ko sañ kooku mooy ki bind moo tax ñaari xeeti tawxiid yooyu dañoo lënkaloo boo xasee nangul sa borom ne moo bind te moo moom ñaareelu jéego bi nangul ne moo sañ moo sañ a wax ne jaamu leen ma ku dul moom kenn du ko jaamu nit di su ko jaamu aw xeram di su ko jaamu malaaka di su ko jaamu jinne di su ko jaamu ab yonent di su ko jaamu jaamu bu xasee jóg ci kenn rek la jëm mooy sun borom tabaraka wa taala loolu leer naa ñetteelu xaaju tawxid bi nga xam ne moo koy mottali waxoon naa ne mooy nga xam sa borom nag ay melokaanam moom turam yi ak melokaanam yi dañuy xamle kan mooy sunu borom tabaraka wa taala ndax kat borom bi bu ko neexoon day wax rek jaamu leen ma ñu di ko jaamu xamal leen lim bind lépp moo bind asamaan moo bind suuf moo leen bind moo bind nangam yooyu yëpp mu xamal leen ko bu ko neexoon doonu xamal boppam ci dara waaye nag danoo xamal boppam ci ay melokaanam yoo xam ne lay tax mu nu koy xamal daa war a am jeexit ci nun daa war a am lu mu nuy jariñ bokk na ci melokaanam yooyu mooy xam-xamu sunu borom tabaraka wa taala xam-xam la bu tàmbalewul fenn yemul fenn itam maanaam lu yàlla xamul amut loolu faaw julli bit xam ko soo xamee ne lu yàlla xamul amut lum gisul amut lum déggul amut yooyu am na lu muy def ci yow nit ki yow mi gëm loolu moo di loo wéet wéet da nga xam ne wéetoo loo wéet wéet fi barab da nga xam ne wéetoo fa am na keneen ku fa nekk koo xam ne xam-xamam fépp la àgg ab gisam fépp la àgg ab déggam fépp la àgg kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala kooku mooy raqib nga xam ne mooy fuglu ñépp lam lay jural mooy li ngay wone ci bitti ak la ca biir day doon benn ndax bi nga ñëwee ci nit ñi di rafetal sa jaamu yàlla kat boo wéetee it faaw nga rafetal ko ndax da nga xam ne ka nga doon jaamu ca biir mbooloo ma ca jàkka ji ñi lay xool ngay rukkoo ko sujjóot bi nga wéetee ci néeg bi te tëj ko kooka moo lay xool ba tey di seetlu ni ngay jaamoo ndax nit ñi ngay jaamul wala yàlla ngay jaamu loolu dana ko def ci yow loolu nag la ñuy tudde ixlaas ka ca am martaba bu kawe kooka moom sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën a fay te it fa mu toll fa yàlla sunu borom rek ko xam nit ñi ci ixlaas la ñuy rawante ku la gën a sellal digganteem ak boroomam moo la raw fa yàlla loolu mooy li wér moo tax ku ne nag mën ngaa natt sa bopp ndax li ngay def ci kanam nit ñi ak la ngay def boo wéetee lu ci gën boroom xam-xam yi nee nañ su fekkee ñooyam day yaa ngi ci aw yiw maanaam sa ñaari rakkaay yi nga jóg di ko julli bi nga duggee ci jàkka ji nga xam ne fii ci kanam nga nekk gaa yépp di la xool noonu yi nga ko jullee boo duggee ca sa néeg ba tëj ko ci guddi gi julli ñaari rakkaa su fekkee ñooyam nee nañ yaa ngi ci aw yiw su fekkee nag ñaari rakkaa yu tëju ya moo gën a sell moo gën a dal yi nga doon julli ci kanam mbooloo mi nee nañ kon kooku ci jaami yàlla yi ko jege ci nga bokk su fekkee yii ci bitti nag ñoo gën yee ca biir gaawal ci urgence nga nekk gaawal dab dab sa bopp ci yoonu alkande nga nekk ñett yooyu rek nag moo fi nekk benn ñu yem wala bu wéet bi gën wala bu fés bi gën jamono la lan nekk nag jamono joo xam ne jamono njëstal la waxoon naa ko mbokk yi fii nit ñi njëstal dafa dem ba xamatuñ ne njëstal la lu nit ki def dana ko photo génne ko tàbbal ko ci réseaux sociaux yi ne def naa nangam bu doon ak jaamu yàlla sax ñu ne def naa ko wax naa da ngay dem ba màkka gis kuy tawaaf yorub téléphone am di di wër di def nii bu noppee dugal tey laa doon tawaaf tey laa doon dox Safa ak Marwa tey laa taxawoon araf koo koy wax bu dee sa boroom nga koy defal moo gën a jege nit ki ab xolam wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ak naalamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid li muy xalaat cim xelam te defagu ko yàlla nga koy xam kon la muy jëf taxul ñuy wax ñoo wax ne waa ji dafa dugg ci jàkka ji fajar jàkka yi ci jamono yooyu yorut ay kaadar yi ñuy ub bi mu duggee mu lëndëm làmp yuy tàkkit nekku fa mu seen jëmm ju nekk ca gannaaw toog mu ñëw rek di kàbbar di julli di sëlmal su sëlmalee xaw a geesu seenaat ko rek kàbbaraat di ko def di ko def ba mu xaw a leer mu xool seen ndekete li toogoon ab xaj la ñu cop mu ne subhanallah bi ma duggee fii ba léegi ndekete ab xaj lay julli loolu day dal nit ñu bare bari jëf joo xam ne nit ki nii mu koy defee jëmm jee koy xoola tax mu koy def waaye su weetoon du ko defe noonu yàlla na yàlla musal lu doy waar la day tàbbi ba ci waxi ni nit ñi ña ngi koy yàq ci njëstal te yëguñu ko nee ñu gan nga dafa ñëw ca saal ba nuyoo waa ji ne doom ji indaaleel ma sama mbubb mi ma jëndoon ca sama juróomeelu aj juróomeelu aj lu mu ci doon maanaam bu fekkee ne yàlla moo taxoon nga aji juróomi yoon jële fa mbubb nee ko sama mbubb mu yàq ma wala mu ñuul ma wala jàllaa bi wala indil ma sax mbubb nag rek waaye limaale ci aji am na leneen loo ci jublu loo xam ne mën naa yàq li nga defoon lépp moo tax làmmiñ yi ak xol yi doomu aadama ji daa war a sonn loolu ci sàmm ko kon xam-xamu sunu borom akub gis akub déggam yooyu misaal la ci yi ñu tudde al asmaa wa sifaat nga xam ne mooy turi sunu borom yi ak melokaanam yi nga xam ne su ko jaam bi jàngee ba xam ko li mu koy jural mooy mu xam dëgg dëgg nag boroomam mooy kan xamin woow yi mu koy xam day jeexital ci mboolem ay jëfam moom ndax day xam ne mi ngi jëflanteeg boroom boo xam ne dara ump ko kon jub dong lay mën a def day dem ba ci sa kóolute sa digganteeg doomu aadama yi ki nga yoreel bor mu fàtte ko ndax da ngay jàpp ne loolu moom bénéfice la boo xam ne moom gañe nga déedéet da nga ne kooku musiba la ci man yow fàtte na ko fàtte woo ko demal nga fay ko dañ laa dénk kees dañ laa dénk responsabilité boo xam ne alal ju bare nekk ci sa loxo mu wóor la ne am na pexe yoo xam ne soo ko defee mën nga ciy jël te kenn du ko xam nga ne ah nit ñi kat ñoo ko dul xam waaye am na koo xam ne dara ump ko te kookee laa amal affaire ëllëg ginnaaw xam na ko ab virgule du ci jógee ab dërëm du fi jóge lépp danañ ko sàmm mu tegu ci yoon moom mën a tegu yëg-yëg boobu muy wàllu pastéef su tasaaroo woon ci askan wi ba ñëpp fas ko di ko dund kon waxuma la àllaaxire nit ñi moom dana jag waaye seen àdduna sax day jag càcc geeg tuurum kees meeg càccug réew yu mag yi ñuy sàcc càcc yu mag yi nga xam ne ay milliards yu du jeex la ak yépp day dem ba jóge fi te du ay kasaw ko fi jële wala ay xupp wala ay xulo wala ay werante waaye la dox sa digganteeg sa boroom mu wóor la ne dërëm bii nga jël te moomoo ko ëllëg ci bàmmeel danañu la yee lépp lu mës a dugg ci sa loxo ci alal ñu laaj la ñaari laaj yoo xam ne pexe amu ci foo ko jële woon nga di ko tontu te doo mën a wax leneen lu dul dëgg lam sàccoon danaa lii dama ko sàccoon lim këfe woon ci ay nit danaa dama ko këfoon lam naxoon nit ba yóbbu ko danaa dama ko naxoon ba yóbbu ko bu noppee lool jeexut waaye bi nga ko amee ba noppi foo ko dugal mën nga ko fàgg mu lew damaa xëy di liggéey nekk ci sama atelier nekk ci sama bitig liggéey ñaq ba jot ci sama alal waaw bi nga ko amee ba noppi foo ko dugal foofa it doon foo xam ne fu mat a sàmm la kon ñaari question yooyu yi nit ki fii ci àdduna ci alal da ko war a teg ci kanamam te xam ne boroomam ab xam-xamam akub gisam akub déggam mi ngi ànd ak moom bisa ngay ñëw ñu laaj la ko benn dërëm bu nekk foo ko jële ak bi nga ko amee foo ko dugal loolu yi dana tax nit fu mu toll fu ne di dellusiwaat ci boppam di xool waaw man li dugg ci sama loxo lii fu mu jóge lii est-ce que maa ko moom soo ko moomul xool noo def ba mu jóge ci sa loxo yaa ko moom waaye maa ngi koy bëgg a dépenser xool ba xam fi nga koy def fu mu doon ndax fii fu yàlla bëgg la wala fu yàlla bëggu bu dee fu yàlla bëgg alhamdulilah yàlla bëggu ko sama alal du fa dem kon jeexit woow yi ngëm-ngëmuk al asma wa sifaat daf koo am ci nit moo da jeexital ci moom ba soppi suluukam ak i doxalinam kon bunt boobu doon na bunt boo xam ne ku ci xas bàyyi xel ci wàllu pas-pas da nga xam li yàlla bind te moom ko doo ko saña moomale kenn da nga xam ne moom mi bind te moom moom lañ war a jaamu bu dee cant moom lañ war a sant bu dee gërëm moom lañ war a gërëm subhanahu wa taala waaye da nga ca dolli xam ne sa boroom mii kat ab xam-xamam akub gisam akub déggam amul ay frontière su ko defee nga jëflanteeg moom ci lu toll noonu yi sa bitti ak sa biir nekk benn loolu su ko jaam bi defee ci wàllu pas-pas day mucc ndax dana dana am yatt yi nga xam ne ku ko am mucc ci yatt yi nga xam ne ñooy safaanam kooku texe nga bi ci jëkk mooy am tawxiid mucc ci bokkaale bi ci tegu mooy am sunna mucc ci biddaa bi ci des mooy topp yàlla mucc ci mooy yàlla yett yëpp la yoo xam ne benn bi ci ne dafa amub safaan ki am tawxiid mucc ci shirk fexe ba am sunna te mucc ci biddaa fexe ba am taa muy topp yàlla mucc ci maasiya kookee mooy kuñ am yaakaar ci ni ëllëg mucc na firiwul nag ne nit ki day dem ba duutu am bàkkaar wala duutu tooñ kay nit ki nu mu mën a def dana juum waaye su juumee nag na gaaw tuub te lam defoon mu bañ koo defati saa bu juumee na tuub te lam defoon mu bañ koo defati incha allah niñ ko fas yéenee doxale mooy suñ ubbee dem ba toll ci waxtu wi jot rek ñu taxaw su ko defee buñ noddee ba noppi jël ñaari laaj ñett su ko defee daal di julli booba jotaay yem foofa niñ ko xamee nii nag bind bu ñëw bu nekk ay laajam mu bañ a génn liñ doon wax ndax bunti xam-xam dafa yaatu lool xëy na mën nañoo dem ba am yenn jotaay yoo xam ne buñ ko toogee dañuy wax lu waaye bëgg a laaj mën na koo laaj su ko defee lañ ca xam insha allahu tontu ko ci waaye ginnaaw ci njàng lañ ne nag ab dars nga xam ne kii moom leçon la boo xam ne yow ci sa bopp dañ la koy laaj ëllëg lu ci desee leer ci liñ doon wax loolu lañ bëgg nga laaj ca nga xam ne soo fi jógee daal da nga daan bii bunt moom ni ma ko déggee leer na ci man su ko defee bu ëllëgee luñ la ci laaj nga mën koo tontu kon ñaata ñaata xeeti tawxid lañ wax ñett benn bi mooy li aju ci li yàlla bind ak lim moom bu dee ci waroom xam-xam yi moom la ñuy tudde tawxiidu rububiyya beneen bi ci des mooy nga xam li yàlla sañ ci yow te sañ ko moom dong mun a muy àq joo xam ne yaa ko ko yoreel yow te yoreeloo ko keneen ku dul moom muy muy jaamu ko mooy tolloog tawxiidu al uluhiyya beneen bi ci des mooy nga xam turi yàlla yi ak melokaanam yi ak jeexit yi mu war a jeexital ci sa dund yom yooyu soo ko xasee xam ñu ko tudde tawxiidu al asma wa sifaat yatt yi su dajee sa tawxiid moom mat na la ca des nag mooy góorgóorlu dugg ci détails yeeg jéem a xam bokkaaleeg ay xeetam ak yu nuroog yooyu ngir nga mën caa mucc ndax xam-xam ni ñuy jàngee lu baax li ngir bëgg koo jëfee noonu la ñuy jànge safaan bi itam ngir bëgg caa mucc moo tax nit ki ni muy jànge tawxid noonu lay jànge itam shirk shirk dafa am ay xeet yu bare bare bari yoo xam ne yenn yi sax dafa làqu ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko nee na bokkaale moo gën a nëbbu aw lan aw aw mellentaan wala aw sànqleñ woo xam ne day dox ci biirug lëndëm bokkaale ko gën a nëbb kon nit ki léeg-léeg jaadu na mu dugg ci bunti bokkaale yi jàngat ko ba xam lépp loo xam ne xeetu bokkaale la muy bokkaale gu mag ak gu ndaw ngir mu mën caa mujj waaye daal lay cosaan li moom mooy xam tawxiid bi fexe ba mu nekk ci sa xol nga gëm ko mu nekk pas-pas bu wér kon defe naa ne waxtu noddu bi jot na waaw kon ñu noddu insha allah kon bisimilah ñu aha
salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu man li may laaj mooy sànq si biir bi nga doon leeral yaa ngi leeral ba dugg si wàllu. ne am na borom xam-xam yoo xamante ne gëstu nañu si wàllu naaj ñëw indi si ne am na am na yeneen yeneen i naaj daal léegi man li ma si jaaxal est-ce que si alxuraan li ma jot a xaw a kii bàyyi xel tuuti daal gisuma fu alxuraan ñëw indi wax naaj façon naaj yu bëri ay weer ay fu an naaj wan naaj mu ay ay biddéew ak yu demee noonu daal lay wax indi jàmm mais léegi gisuma fu mu indee wàllu naaj yu bëri daal. bëggoon leeral daal bëggoon a leer incha allah.
waaw lim jublu ci naaj mooy jant bi waaw jant bi waaw ñu bari dañuy wax naaj fekk jant lañ bëgg a wax naaj moom ci jeexit yi jóge ci jant bi ci la bokk moom su jant bi génnee naaj day am waaye nag du naaj mooy jant dafa ne ndax alxuraan bu ñëwee jant lay wax moom benn lay wax lu mel ne wa shamsi wa duhaaha wa najmi wa shajari yasjudan mu ne nan la war a mën a amee kon yu bari benn ñu xam ne alxuraan dikkul nekk téere boo xam ne jubluwaayam mooy détaillé ci li yàlla bind lépp alxuraan bokk na ci doxaliinam mooy globalisé fekk yu baree bari mu jàngale ca la ko itteel li ci des mu bàyyi ko nit ñi ñu gëstu ko yaa ma'shara al-insi wal jinni man istataa minkum in istataatum an tanfudu min aqtaari samawati wal ardi fanfudu laa tanfuduna illa bi sultaan foofu borom bi ubbil na leen bunt na leen su ngeen mënee gëstu ci asamaan yeeg suuf yi dem leen gëstu ji ubbil nañ leen bunt boobu waaye dikkul ngir dinu leeral naa nu nangami biddiw moo am wala nangami asamaan nangami jant moo am asamaan yi daal nee na nu juróom-ñaar la suuf yeet nee na nu juróom-ñaar la waaye juróom-ñaar yooyu bu jëkk bi fan la tàmbale ba fan la yem waxuñu ko moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne mboolem liñ gëstu li tàmbalee fi ñuy nekk nii ba ci jaww ji fa mu yem nun fa gëstu doomu aadama yemagun génnagul asamaan bu njëkk bi asamaan su njëkk si kon nag ñaareelu asamaan ba ci ñetteel ba ba ci ñeenteel ba ba ngay àgg ci juróom-ñaareel ba loola dénd boobu yi nan la toll te yooyu yi ñuy wax yooyu yépp ñu naan la jant boo xam ne nam soree fii nangami million yi at la ci ak leer yooyu yëpp su fekkee ci asamaan su jëkk si la nekk kon sa ca tegu ak sa ca teguwaat ak sa ca teguwaat kon da ngay xam ne doomu aadama ba léegi ci ab gëstuum ak fi mu tolloogun ñu jàpp ne ab xam-xam bu jéggi dayo la maanaam génnagut ab roq roq su tuuti ci roq yi suñu borom tabaaraka wa taala bi waaye daal li ci am solo mooy nu xam ne alxuraan moom dikkul di détaillé ci yu mel noonu boo seetloo wa shajaru la wax yasjudaani wa najmu wa shajaru yasjudaani najmu foofu ndax dañ koy jàppe benn biddiw wala yu bari suñ ko jàppee benn biddiw ash-shajaru kon genn garab lay wax waaye garab yi bari la ci jublu wax waaye yaata la ak yan façon garab la yooyu alxuraan du dugg ci détail yu mel noonu alxuraan day dikk wax li nga xam ne mooy loo xam ne nit ñi dañ cay jariñu loo xam ne nag xam-xam da ko gëstu ba teg ca bëtam loolu moom di su ko weddi ndax gis la li nit gëstu ba gis ko ak appareem gis ko ci bët day turwe ne lii kat nekkati nii la mel doomu aadama ak li nekk ci biir beeg yu mel noonu borom bi tabaraka wa taala buy melal rek day wax ne maa fil arxam la wax maa wa ya'lamu maa fil arxam li nekk ci biir biirum ndey ja loola lan la moo tax léeg-léeg yon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yooyu da ko tudde yi nga xam ne mooy mafatixul xayb alxamsa mu boole ci li ne ci biir bi li ne ci biirum ndeyam te juddoogut lenn ci gëstukat yu bees yi ñu yaakaar ne loolu moom li ci alxuraan jublu rek mooy ndax li ci biirum ndeyam ndax góor la am jigéen ñu ne ah loolu kat xam-xam léegi mën na koo xam te yàlla dana woon loolu mafaatixul xëyb la kon lu tax mu nekk xëyb boo xam ne kenn waru koo xam ba noppi gëstukat yi dem nañ ba xam nit ki juddoogul ñu xam góor la wala jigéen ndax loolu daa daa teppile alxuraan waxoon ñu ne déedéet alxuraan ay waxam du teppiku ndax maa bu ko alxuraan jëfandikoo kooku daa bokk ci alfaazul umum maanaam day matale yàlla xam na léppi ki ne ci biirum ndeyam loolu la laay jële firi waaye waxul ne xam na ne góor la wala jigéen la su fekkoon ne daayam foofu rek su demee ba nit ñi xam ko kon ñu ne li yàlla xamoon kat nit ñi xam nañ ko léegi waaye li mu wax gën naa yaatu xam na léppi ki ne ci biirum ndeyam te juddoogul loolee doon gi góor ak jigéen a nga ca biir dëgg la waaye ndax dana dund ba juddu wala day faatu door a juddu loolu machine xam na ko ah bu juddoo day am wërsëg wala wërsëgam day gàtt machine dana ko xam day gudd fan wala day gàttu fan ku texee lay doon wala ku texee di lay doon ëllëg loolu machine abbi loolu lépp maa da ciy dugg kon borom bi tabaaraka wa taala waxi nañ ci biir alquran faw nit ñi di ko jàng di ko xam door a mën a jëflante ak téere boobu yi téere bu doy waar la naam wa barakaatu man damay laaj ba xam nit ki su nekkee daa bëgg a wéral pas-pasam day fecc li mu façon lépp ba pare wala day téy li mu fas di jël su suñ ko waxee lu leer mu jël ko fas wala day fecc li mu façon lépp ba pare commencé jël di fas
nit ki bëgg a wéral pas-pasam ndax day fecc pas-pasam lépp wala day garde lim façon di wut di ci dolli déedéet du ci def lenn maanaam du dajji pas-pasam lépp waaye du téye lépp itam lu dul su fekkee lépp daal li muy def mooy day vérifier li mu fas moom ndax lépp a baax wala am na lu ci baax am ci lu dul noona su ko defee li baax mu garde ko lu dul noona moom mu dindi ko la ca nekkul nag te doon lu baax te war caa nekk loolu mu jëli ko indi ko ci waaye kenn du wax ne nit ki la nga gëmoon lépp ba nga juddoo ba tey da nga koy weddi tey wala nga bàyyi ko loola gëm yàlla ngi ci biir te loola di su ko dindi bu fekkee ab jullit la gëmoon na yàlla doon wax ashhadu an laa ilaaha illallah di wax ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu xel xalaatul di ko dindi waaye nit ki mën naa yore loolu ba àggal nag am yeneen i yëf nag yu ca dolli ko yoo xam ne yu ca bokkut la wala mu dégg ko déggin woo xam ne du noona ñu ne ko ah li ci bokkul nag dindi ko li ci bokkul nga xam ne alxuraan ak sunna jàngalewu ko loola dindi ko ba mu set wecc li ci manqué it ci ay pas-pas yoo xam ne da nga ko waroon a pas nga indi ko dolli ko ci du lu jafe nag yett yi ma la limal léegi su fekkee ne nit ki am na ci feq te dégg ko déggin wi jaadu pas-pasam day daal di tegu ci aw yoon insha allah ndax mooy pas-pas bi alxuraanul karim jàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kook saxaaba yi naam jazakallah xayran cheikhana tey laaj bi dafay delloo xam naa ci dars yi nga xam ne moom lañ fas yéene taxawee fii nii te mooy nan koy defee nii ci wolof moo ndax bokk na ci yéene yi mooy bis ñëw mu nekk ab téere boo xamante ni def na koy jàng ak di ko jàngale ci barab yu bokk def barab yi
waaw lim laaj mooy ndax li ñu jàngale nii nga xam ne ay bind rek la ndax bis dana mën a ñëw mu doon ab téere boo xam ne dañ koy jël di ko jàngal da ngaa jublu lii nuy wax ci boppam doonub téere wala nu andi téere di ko jàngal.
déet moom ci jëmmi boppam.
waaw li nuy wax ci boppam ñu mën koo def ab téere. ala kulli xaal am na ci loo xam ne nag rôle donga yi jàng la ndax kii déglu di enregistré lu baree baree bari ci borom xam-xam yi tey téere yi ñu naan lii téereb sëñ diwa téereb sëñ diwa ndongaama toppoon ci moom muy jàngale muy bind. wala muy enregistré bi mu noppee loolee mu enregistré mu topp ko bind ko ba mu àgg mu dikk jox ko ko mu xool ko lu ca mat a defaraat mu defar ko jox ko ñu daal koy génne mu doon ab téere waaye yombul ci jàngalekat yi lépp luñ jàngale lu ne rek dañuy génn daal di koy bindaat mu doon ab téere waaye nag ñay topp ci ñoom loola mën nañ koo def seenub liggéey la mooy ku ci yàlla baaxee nga mën koo topp di ko karmat moo xam da nga koy bind wala da nga koy enregistré boo noppee mën a jël sab kaye yàlla jox la kàllaama goo xam ne dégg nga ko bu baax ci arab ba mën ko caa tuxal bind ko soo noppee jox ko aji wax ji mu xool ko lu ca mat a wéral mu wéral ko lu ca mat a jubbanti mu jubbanti ko su baaxee noona it mën la baax na noona lu mel noonu ay téere yu bare bari génn na tey te fekk noonu yi la génne bal am na boroomi xam-xam yoo xam ne sax seeni téere ngi ci marché bi te mosuñoo bind benn téere loolu man xam naa ko ci jàngalekat yi xam ne seeni téere mi ngi ci marché bi bari lool su fekkee mas nañoo bind ab téere ab risaala bu ndaw lay doon boo xam ne bokkul ak téere yi nga xam ne moo tasaaroo waaye fekk seeni ñay toog ca seeni jataayi xam-xam muy ndongo ya ñoom ñooy taxawee liggéey boobu yi barakallahu fikum cheikhana li may laajte mooy léeg-léeg dañuy gis ci téere tawxiid yi yenn boroom xam-xam yi dañuy wax ne xam-xam ilmu tawxiid ñaari xaaj la ñaari façon la tawxiidul maarifa wal isbaat ak tawxiidul talab loolu nuñ ko mën a boolee ak sa wax ji nga wax ne xam-xam ilmu tawxiid ñetti façon la waaw barakallahu fikum barakallahu fikum
waaw lim laaj noonu mooy séddale tawxiid ndax ñaari xaaj rekk la wala ñetti xaaj la ndax dafa am oroomi xam-xam yoo xam ne moom dañ koo séddale ñaari xaaj wax na dëgg am na ci ñoo xam ne dañoo ne tawxiidul maarifati wal isbaat leneen li ci des ñu ne mooy tawxiidul uluhiya tawxiidul uluhiya mooy xam-xamu tawxiid bi nga xam ne mooy nga xam xaq yàlla ci ab jaamam te mooy mu jaamu ko li ci des ñu tudde ko tawxiidi xam-xam ak saxal xam-xam ak saxal boo ko seetloo nga xam ne yàlla moo bind moo moom loolu xam-xam la nga xam al asma wa sifaat muy turam yi ak melokaanam yi nga nangu koo saxal loolu la maanaam ñaar yooyu lañ boole def ko benn ñeneen ñi jël def ko ñett waaye lépp résultat bi benn la maanaam kii dafa ñëw ne tawxiid ñetti xaaj la mooy tawxiidu rububiya nga xam ne mooy nga xam li yàlla moom ak lim bind xam ne moo moom moo bind beneen bi nga xam ne moom dong la ñuy jaamu beneen bi nga xam turam yi ak melokaan yi muy yett kii ñëw ne la yaar la ñaari xaaj la benn bi mooy tawxiidul uluhiya mooy nga xam ne moom dong nga yeyoo ñu di ko jaamu ñaareel bi mooy nga boole yaari yëf al maarifa wal isbaat maarifa day ñëw ci la ñu waxoon ci tawxiidu rububiya muy nga xam ne ndax maarifa li muy firi mooy xam nga xam ne moom moo bind moo moom li ci des mu ne wal isbaat isbaat mooy nga xam tur yi ak melokaan yi saxal ko ndax isbaat li muy firi mooy saxal kon ki ko tudde tawxidul maarifati wal isbaat ak tawxidul uluhiya ak ki wax ne ñetti xaaj la muy rububiya ak uluhiya ak asmaa ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy wax maanaam xam nga kuy jàngale bu la neexee nga séddale lii ñaari xaaj bu la neexee nga séddale ko ñetti xaaj waaye fekk na li ngay séddale lenn li la waaye li ci am solo rek mooy na dugg ci bopp ki koy jàng ba mën leen a xàmmee waaye nag li ëpp ci borom xam-xam yi moom ñetti xaaj yooyu ma la wax noonu lañ ko séddalee ndax ci lay gën a yomba takke ci lay gën a yomba takke wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa القلب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم يصلح العمل جمل المنطق بال-